baax baax di ko jaajëfal mais les violences dans les camp euh, aussi euh, c'est le moment de de dénoncer vraiment ñu def tout pour ren la xewoon vraiment bañ a a xewaat euh, ñi nga xam ne ñoo di acteurs yi def campagne ci jàmm population bi a déglu candidat ñi nga xam ne wóolu nañ leen ñu daal di leen votel ki war a gagné vraiment c'est l'appel qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire pour que vraiment benn heure bañ a am ci diggante bi benn militant ak beneen ñàkk du tee itam mën nañ saafonte ko ci nekk rek nga daal di fësal la nga xamante ne moom la ki ngay àndal daal di daal di am comme euh, programme salaamaaleykum allo. maaleykum. Jérôme ça bien. ça maa ngi lay fay naka journée bi. oui. tout se bien. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam sëñ bi na ngeen def. waaw jërëjëf Serigne Mor Niang bu Mbacke Baar la. Serigne ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñu nekk ci internet bi mhm. mhm. waaw xam naa di nuyu tamit euh, Diop moomu génn léegi. Mhm. Euh, xam nga senegaal ñëpp seetlu nañ ne. ñun ñu ñëpp am nañ ay jafe-jafe ndax bu ñu sañoon élection yi day déroulé normal. Mhm. mais fa fa mu fa jafe-jafe bi amee yëpp ñun ñëpp ci tegaloo suñu bët. Mhm. mooy son son excellence président de la République tous les Sénégalais. Mhm. Ah, dem ci élection yi doo moom mu ne du bokk. mais ba léegi day ba mu ne du ma wax way du ma wax non tardeel élection yi. élection yi moom lu waaye mën a wax da ngay tooñ opposition bi rek mais Macky Sall moo tardeel élection yi parce que moom bokkul ñaari mandat moo jeex Sénégal yi war a seet keneen Babacar Fall bu war fa fa laaj ko mu ne du wax wuy du wax non toog ba mu def juróom benn weer mu jël Amadou Ba def ko premier ministre wënu ko Sénégal yi waroon na ànd ak moom ngundeelu ko ci oto yi dem seeti kilifa diine yeeg seeti département yëpp président leen Amadou Ba nee na kii laa fi bëgg a bàyyi. Mhm. mais toog moom da juróom-benn weer Amadou Ba moom moo la moom ci boobu Amadou Ba sax bëggul dem soo ko xoolee xam ne amul ambition président ñoom ay cadre la ñii mooy gars yi sëy si ba di wàcc yor seen i bureau bi bu ñu paree ñu tëjal leen ko ñu dem passé seen dikkan dem jëli seen i conseil bitim réew dem ñëwaat ñëw mais ñoom amuñu ambition nekk président la fa nga di ko forcé xam nga forcé Amadou Ba. moom moo ko indi li Mbacke nga ne waroon na fa ñëw bari ci dem keroog bi ñuy immigré seen stade dégg nga dañ ñoom ñëpp fa dajoo di ko yóbbu mu ñëwaat fa bari ci dem ñu war a bitim foofu benn APR ci ministre yi Macky Sall ñëwul teew nga xam ne ñoo war ñëw ba stade bi fees Amadou Ba war a daw une heure de temps ñëw ci stade. Mhm. mais yow gis ñu ba benn responsable mais lan moo xew yow sama sëriñ si nga mais loolu loolu mën naa bokk. Ar kii euh, Amadou Ba mooy sunu candidat. ah. non il faut qu'on la vérité. Mhm. parce que nous n'avons pas comprendre comment ça peut dire qu'un candidat à terre candidat au pouvoir. ah. ñi la war a dooleel yëpp kenn kenn ñëwul. ñu dem jàppale jëf. Mhm. ku ñu département bu ci nekk bu ñu ñëw nga dox ñëwu leen. mais toog def lii yëpp ba pare ñu xeex ci seen siège bële. démb ñoom ñoo fa xeex barki démb sama mbir paase. moom seen garde corps yi marron yooyu marron beige yooyu. marron du que ñoom nee ba affaire ñu ne ba léegi bénéfice bénéfice wuñ ci te affaire ñi ngi bëgg a jeexal nañ leen jox seen wàllu sa nguur gi moom lañ doon xeex de mais xoolal loolu kon la faute à qui la faute à qui c'est l'affaire ñoom dañoo yéexal dañoo yéexal Macky Sall na dafa waroon di wàcce kaamil ak dem ci église yëpp mu joxe fa ay ñaan. ñu ñaanal réew mi mu tàggatoo nit ñi ci jàmm. Mhm. ni ñu ko woon ci réew mi ci jàmm tàllal la sa ma ñaanal la mu tàllal ñu ñaanal. Mhm. président toujours ma incité dugg ci seen rajo waxoon ne ko na sant yàlla julli ci salaam gërëm ay waa juróom. ay waa juróom loo ko loolu xas xas xas. Mhm. am nañ doom yoo xam ne nekk na député nekk ministre yëpp da koo nekk président tous les Sénégalais. pendant na sant yàlla. gërëm a waajuram loolu laa koy wax moom te mu organiser élection yu jaar mhm. te la ko faloon nag moom moo indiwaat gi gën a ngelaw ngelaw loo xam ne kenn foofu ko woon mhm. ngelaw loolu indi Ousmane ci réew mi te ngelaw loolu kenn déclenché wul ngelaw li Macky Sall moo ko déclenché. Mhm. parce que moo fekk Ousmane Sonko di liggéey impôt et domaine di liggéey liggéeyam di def liggéeyam convenablement. mu xeex ko ba jëlee ko mun na ko man ne du ma xuloo yow du ma def ak yow dara yàllaa la jox réew mi man tamit damay demal sama hmm. bopp nga ma dàqee noonu laay dama def sama bopp wuti comme ni nga wutee waaye élection député yi jàll bu hmm. fexe ba ba hmm. euh, indi euh, indi suppléant yi yàlla na ko looy def def xanaa xamula ne isaa isaa xada am ran fay na maa yàqul loo bun fa yàqul xanaa xamula ne man lu ngay dogal bul soxal sa bopp Ousmane Sonko mi dogal bi mu dogal suppléant moo gagné. Mhm. titulaire bi nga xam moom la fi président Macky Sall tegoon ci région de Dakar yow yow loolu zéro ah, amoo ci njaaxle suppléant <laughs> si suppléant bu dem béykat yi dara ci séddale. départemental. Mhm. région boo fa dara région de Dakar yëpp la nangu si moom. Mhm. muy juróomi département yi fi nekk yëpp Ousmane Sonko dogal a affaire loolu birum suñu borom la na ko gëm mhm. te mooy suñu ko gaay yii ñii gis nga ñii yé ma yoo xam ne fi mu toll li mutuñoo def benn débat gis naa télévision yi ñuy def yëpp yow jërëm dañuy ruubee rek mhm. duñ wax ay argument du ñu di ay preuve parce que débat d'idées dafa baax da ngay wax xalaat génn xalaat boo xam ne ku ko dégg sax bëgg président mhm. mais ñi mu ñi mu ñu mu ñi mu ñi mu yóbbu ci débat yi man ñooñu damaa defe ne dañoo naanu seen i comprimé bu ñu xëyee wala bu dee dañuy dem fànn faju ñu wax ko nit ñi débat bu ñu dem dañu xuloo ko xeex ba ci seen TV gi ñu mujj barki dem gis nga dañu mujj ak arrêté émission am mhm. ñu demati wala faj dañuy arrêté émission am yéen site internet yi ci bari buñ buñ leen buñ foofu duñ ko wax dara lu jëriñ Sénégal mhm. loolu moo rëy réew mi mhm. nañu gëm yàlla gis naa tamit dem waa ñi la waa yeewi askan dem fële euh, Grand Yoff

Hmm. maa la ko wax du ma nekk jamono boobu noonu la meloon looloo taxoon ñu tuddee ko du bale. d'accord. comme bu ñu xool rek tey bañ gën a wax. dana leen gaañ de. Hmm. merci dana leen gaañ. merci merci beaucoup sëñ Niang dafa jàppale ko yàlla may ñu ndam. dañu hmm. organiser yi jaar yoon kii fi diine yëpp a ngi leen di déglu. merci beaucoup mais nañu organiser yi ci des bariwul daanaka léegi yàlla te doxal xam ne réew yëpp a ngi dox ba mu des Sénégal te tubaab yëpp ñëw nañu seen i caméra di du xool Sénégal fan la jëm. jàmm lañ jëm. jàmm lañ jëm nañ jëm ci élection yi euh, ci yàlla dogal ñu nangu ko. waaye ñoom xam nañ fi fi vote bi nga xam ne actuellement nii. ku ànd ak Seydina Ousmane Sonko. yaa ngi ci xaru te kenn xamul foo nekk. <laughs> yow moom yow moom sa campagne saf na. ndax carte gi gaaw. merci beaucoup. merci ci Diomaye ndax carte gi gaaw Babacar kii laa njëkk rek baal ma ci général. parce que sénéra sénéra li mu def démb. convoqué hmm. waa Diomaye Faye ba ñëw war a def discours mu def discours pare ko laajte du ko teg. ah non non il faut dire RTS mhm. mhm. moom mu nekkoon directeur bu RTS ah ci jamono jooju. Abdoulaye Wade jógee na ba bitim réew keroog 30 ci RTS 30 secondes yoo xam ne a nekk rek mm-hmm. mm-hmm. ko def candidat wala dugal ko ci liste bi. Mm-hmm. gis nga ñii dañuy fonk Sénégal yi yow sama sëriñ. yow conseil constitutionnel moo joxe euh, autorisation ñu boole ci Diomaye Faye. pourtant yooyu yow mënuñu autosaisir ne ko bind ko lettre ne ko yow eh, Babacar moom ma mhm. télé bi ah. télé bi nag Sénégal yi ñoo ko moom bàyyi ñii ñu génn leen. d' accord. ànd ak directeur général bi nga xam ne moom tamit noonu lay def tey sa borom Macky Sall rek mais ñoom sonal nañ Sénégalais yi. d' accord. mais vraiment si si dans ce pays là dans quelle démocratie on est. jërëjëf. d'accord merci merci merci ni ma koy waxee rek fii moom amul amul censure amul dara day ñaan rek kàddu yi rafet ah euh, ndax huit minutes pour convaincre yéen yéen comme moom yéen yéen sunu ay mbokki internautes euh,